jërëjëf mbokki internet yi ñuy bàyyi xel fu waay mën a ne ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen comme ni ñu koy defee bés bu jot ñi ngi fii ci géejawaay sees si le grand champion Mbaye Diop alias Safara yaakaar naa ne mi ngeen ko bu baax sunuy écran ñu ñëw ngir waxtaan ak moom ci biir làmb ak ci combat bi nga xam ne xëy na géejawaay jógee nañ ko bok ci le 4 février bi ñu tombé tombeeg woon ak dimanche euh, bëgg naa ñu waxtaan ci lu bari bari ci bir lamb ñu tam ci ay adversaire am bobu légui euh togaay bi ngi bëgg a amagul combat dinañ ci ñëw inshallah ñu nuyu ko bàyyi ko mu ak mbokk internet dikoy suivre. wa mohammed ma lay ziar di ziar Diop ak cameraman wa di sant yalla bu baax. Hmm. ñaan Sénégal yalla fi jamm yàgg. wa di ñaanal akhlu lamb suñu borom chamal leen. Hmm. waaw tegal ñu loxo suñu làmb ji mu gën a mën a jëm kanam quoi benn instant. Mhm. waaw ndax làmb instant bi xar kanam bi muy doxee nii moom continuité lañ ci ñaan quoi benn instant. Mhm, mhm, waaw benn mais ñun ñi nga xam ne tamit ay mbër lañ mbëri nangu ñoo jël ñu bëre na gaay wax si ñun tamit ñu bëre ah waaw benn instant. ñu waxtaanee ko mu rafet. ok parce que solo. waaw lu tax nangu ñu laa jël nga bëre. ah tapet laa ko jàppee nag ragal. wa ndax mbëri ñu mbeur buy xeex ñu mbeur buy bëre mbeuri dal mom lu noy rek lañuy wër fo ñom fu mu noyé lañuy wëré té hmm. te mom du maas davanté la te en plus so bëggé ñu nangu la sa da ngay bëreeg ndaanaani wa ben instant mais bo fi hmm. bàyyee ndaanaan di japp ay ya xaar na ya ci né bo dajé wagay mom sa lamb day so sooxe rek ndax da ngay mujjé dem ñibi tok xaar. way hmm. no la démé tay mom bëgg na nga liwon ma say adversaire nga ñëw ci adversaire yi limal ma ci bu ko defee gars yi mën laa jox combat ñu xam ñi nga bëgg ñi nga wala ñi nga bëgg a bëreel tey ñan la safara bëgg a waaw bëri ci laa dëgg yàlla nag man suma adversaire potentiel yi nga xam ne ñoom laa bëggoon bëreel mhm. ñoom ñëpp am nañ combat ok waaw eh, Mohamed boo bëggee dégg-dëgg man lamb booy ci des nii nii mhm. non suma ngor mayetuma may tourné di may benn booy loxo wala may bëreeg sama benn moroom damay toog xaar ñi ma jiir ci làmb nekk ci ay dynamique ak ay performance may ma sens ma mën a bëre mais pour geesu samay moroom nii nii non doy na ndab kenn du ko ñiit yee man wane naa su may preuve daf su may performance ba yàlla indi ma ci niveau bii ma nekk mhm. na ma gaay gesu Tidiane fay nga la amul combat ak ki ko mujjee daan nu mu tuddati sax naan di faal naan di faal nañ na ma ci kenn jël ñu bëre su may jantal grand lañ nag def ci lamb dara sax moo tax ma leen di laaj mais man du laaj mbër waaw mais ñoom dama am yëg-yëgu bëre ñoom parce que dama xam ne ay ndaanaan lañ mhm. dan mbër pour ñu nangu la sa ndaanaan faaw nga bëre ak ndaanaan mhm. yee mais kaña yi ñu ma jox ni ak mbóot yi may tàpp daal ak jinax yi doy na damaa sonn ci rey bi mhm. dañ ma jox loo xamante dañ naan tey ñu rey ko waaw ci la gars yi di doog a mën a comprendre nag ok ok euh, Boy Dakar yi ñaar làmb la waaw Boy Dakar làmb nag moom làmb ci neex la waaw bu ko gars yi bëggee buñ ci waxtaanee buñ dégg moom pare naa pour bëre ak moom. waaw mhm. ah, parce que moom tamit def naa ay preuve quoi benn instant parce que wax sa mbaax bu waaye wàññiwul sa mbaax dara. waaw waaw toog na ci ay dynamique de victoire yu baax. Mhm. génn na génn bu baax. waaw wala sama sama niroowaale sama copain kaw Cissé kaw Gourné. kaw Gourné waaw moom tamit man ak moom lamb bu neex la parce que nooy dégg suuf nit ñi di ko di ci ngurngune quoi. Kaaw Gourné ok waaw benn instant mooy loolu. Mhm. Euh, pourquoi pas ñang Ballo tamit. ñang Niang waaw bu ñëwee ñu bëree ah. waaw parce que man moom comme li ma lay wax rek nekk ma fi di taamu yenn taamu yu métti quoi mais ñi nga xamante ne ni ñëw nañ def preuve gars yi reconnaître leen. Mhm. suñu ma tëggalee ak ñoom ak làmb mu bëree ak ñoom. ñang baalo bu laal yaakaar naa ñoom ñëpp ay combat la ay combat yi neex ku ci pare pour bëreeg Mbaye Diop safara man xam naa ne làmb ji du yàqoo ci man parce que ay damaa nam làmb quoi. supporters yaa ngi koy jooy fu ne nag. waaw man mi acteur principal bi maa leen gën a namb sama bopp ndax man bopp rek laay topp man sama bopp rek laa naw. Mhm. teg si it man laa bëgg waaw Mhm. parce que nit ki léegi da nga toll ci niveau boo xamante ne nii yaa sa bopp li ngay def daf lay neex te maa toll foofu ci sama bopp quoi. Mhm. man lépp lu ma def neex na ma. waaw parce que aw ma doodu sama bopp. Mhm. waaw te yàlla sunu borom suturaal na ma dimbali na ma. waaw mel naa ni ma war a mel quoi benn instant. na noonu mënut a ñàkk nag mais man gis naa ñi ma sopp ni mu bëree. waaw ba tax na wane yaafuus wala dox ci lu ñaaw wala wax ci ñaaw kenn dootuma ci sént ku ma ciy sént ku ne da ngay mujjee toog rek xaar. waaw ut sa hmm. ndox mu sedd rek naan seral sa xol. ok ndax instant yii màgg naa quoi benn instant. ok euh, Fadam mën naa ni tête yu bari amuñu combat hmm. benn guy gi moo ci am combat. Hmm. mais ñeneen ñu si bari ñu yëpp amuñu combat ba ci yow Pam Mbaye a ñëw. bébé guy gi ci combat la jógee ñeneen ak ñeneen amuñu combat lan moo waral loolu ci écurie bu mag. gars dañoo ragal waa écurie Mor Fadam parce que yow Mohamed fii li fi nekk. booy jinne jinne lu boo fi accès fekk fa ay malaaka de. Mm. booy dëmm dëmmul ba agsi fekk fa ay nooxóor fii booy yu ënd booy yu xasaw yu xeeñ ñoo fi nekk foo leen lamb ci bëri ñu wuyu la foo leen fëkk ci bëri ñu yóbbu fi nga bëgg a dem macha allah école de Louma Fadam maa ngi leen di waaw sant di leen gërëm ci côté boobu parce que coach yi fi ne ñu ngi càmbar seen i poulain mm. poulain yi fi nekk tamit nangu nañ ku leen teg lu métti waaw moo ñu yóbbu ci niveau bi ñu nekk Mhm. école de lutte moo faram koo ci gis ci maas mun nga ko xeeb moo koo ci roofanteel xam ne moo la mën ci biir moo la mën ci biti mhm. waaw sunu borom dimbali nañ ci côté boobu moo tax mhm. gars yi dañuy moytu te boo seetee géejawaay li muy rëy rëy mbër bu ci na ca mën a écrit am loo bëgg di nga ñëw ci école de lutte faram taataan ko fi waaw boo doy la na doog a dellu ñu la ci ak sa écrit bi lu waral loolu lu waral mbëri géejawaay di taamu fi dajee moo bëri fii mbay Diop Safara mi ngi fi. Ngala mu ngi fi Cheikh Kayma mu ngi fi xam nga ay pambaay mu ndaw mi ngi fii xam nga hmm. doo boo limee da nga juum ñeneen ak ñeneen a ngi fi ay ñambaan boo bëggee chargé ku ci mel ni bada day raam di ñow hmm. ah ay asan saaka joor ikir bi daal man ñi fi ne man damay xef sama bopp sax su ma takkul ngeem di leen seetaan damay xam ne ay ndaanaan dëgg-dëgg ñoo nekk ci ikir bi macha allah. Hmm. leen ñaanal yàlla sunu borom nag ñun ñu ci amul combat ak ñoom ñëpp sunu borom dafa len ay combat ñu mën a bëri ci lu gaaw benn baa ngi dem ko oui mm-hmm. ok keroog jógee ni jógee ngeen mm-hmm. bu Ndaw Zarko lan ngay jàngat ci boobu combat. waaw di encourager Niang bu Ndaw di frister Zarko. Mm-hmm. waaw parce que Niang bu Ndaw oh, xale la suñu maas la. mais bu tollo fii tey ci làmb a door entraînement moo ko fa yóbbu ak maas. waaw di ko xamalaat tamit. ne ko gis nga. Jambar dawul de te ndaw bu wacce ci xare rek wàcc na mais man lenn rek la contesté ci Boy moy hmm gis nga nit sunu borom bu amé lu mu def ci yow. Mhm. da nga ci jël say propre responsable. man mën na la bëgg mun na mën nga doon sama idole mais man duma roy mindeef bu yalla sak man suma concept lay démé hmm man bu duggé ci ñaan amul masse maas bi baaxul taay bi baaxul dama ree xam na sëgëm sport entraînement sérieux mooy def nit champion damay doon champion. waaw man làmb bàcc seeraas rek laa ci bëggoon a barke Serigne Touba mais bi ma ko xoolee ba gis qualité i nekk ci moom ci bëre ba ma jël ko la reste aw ma leneen lu may copier ci moom parce que sama concept laa ñëwee ana booy fi nekkoon di móodloo móodloo di weng wengulu dañ leen a dóor bañ bëgg a dee ñii dañ leen di dóor bañ daw génn làmb ji ana booy fi nekkoon di Balla Gaye Balla Gaye lu métti lañ lay yeen nit ku nekk ak di yàlla def ci yow nangul loolu xam ne lii sa sa sa sa modèle la sa concept la luy sunu borom def ci yow la loolu da nga koy appliquer. Mhm. boo ñaanal du ma ko ŋaaññe parce que champion la ñun ñëw duggandoo ci làmb mais dafa dem baa ñu fi parce que lan dafa ñëw am lu mu imposé yàlla dimbali ko nag mun nangu entraînement trop sunu borom may ko maas bu ñu mayul dañ ko koy mhm. nangul. Mhm. mais le reste man du ma imiter nit te dama la koy wax booy ñaa ñaa bu man kañaa nekkul ci man ma lu waaye am yéene naa ko champion nga naadaan nga mais ay imiter ay booy ñaa yooyu man teg ko fële nga indi sa concept bopp doomu géej waaye nga doomu gunaas nga man Pikine laa dëkk man paaka ñaari boora ma neexee ngemboo Pikine sama kër ma ma neexee ngemboo géejawaay sama kër papa hmm. mais man géejawaay laay ngemboo parce que may dem làmb géejawaay ñoo may gunge du waa Pikine ñoo may yóbbu hmm. Pikine suñu may gunge sama waa kër maam ñooy ñëw sama gàlle yendu ànd ak man ngemb ma yóbbu ma ma bëre ji yee ba tax na luy xew géejawaay lay xewee mhm. man géejawaay laa am géejawaay laa gëm géejawaay laay topp deretu géejawaay mooy daw sama yaram te laneen faneenu keneen ko téye man lu géejawaay laa soxla mhm. man dama bëgg booy ñaa delloo si waat xelam xam ne defet bi moo koy def mbër de waaw parce que Zarko daan la du du gàcce de yee Zarko mu daan jën kayre tourné bëreeg ñaamu ndaw mhm. su daanee ñaamu ndaw ñaamu ndaw demir wul def na li mu war a def sunu borom nag moo yor ndam di ko joxe. Mhm. dama koy wax mu gën a toogaat ci gàrram gën a xoolaat boppam gën a copier boppam voilà. Mhm. roy dundroog pire de Mohamed. yow li muy li muy imité Boy Niang moo la moo la man loolu moo ma neexul ci moom dama ko koy wax parce que Boy Niang dama koy demal mu may demal. waaw waaw man ak mhm. moom ay morom lañ maa ko mën a wax li ko neex. maa ko mën a wax li ko naqari mu xam ne kii li muy wax dafa nekk ci moom. parce que man duma wax ci ginnaaw nit man li ma lay wax devant le public devant devant l' écran laa la koy wax. waaw parce que man j'ai na à peur ah, man suñu ànd dañuy ànd si dëgg. su ma gisee ci yow lu man neexul dama la koy wax. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw booy ñaa mooy idolam su amee lamb booy ñaa moo koy jàppale. Ah. mais duma dem lamb booy ñaa di ma di la di ma conseiller man Bathie Seras mooy sa mat xaaj mun naan la ci lamb. mais royuma ko ci nu muy doxee nu muy waxee mais su may dem làmb nag sama écurie ñoo may boot ñoo may conseiller dinaa ko woo nag ne ko sëñ bi am naa combat diw ak diw laa war a bëreel wala jour tel laa war a bëree. Mhm. voilà pour moo xam ne respect bi ak cër bi mi ngi daw ba léegi. Mhm. mais du ma ko copier ci dara. ok du ma xoree ci dara man Balla Gaye 2 laa bëgg ci làmb mais nu muy taxawee ci làmb du ma ko taxawee. Mhm. nu muy xeexee ci lamb du ma ko xeexee nu muy bëree ci làmb du ko bëree parce que li moom moom la du man li ci man man la du moom. ok yee benn instant dama bëgg booy eh, ñaa ñaamu ndaw delloo waat xelam ci loolu. Mhm. roy dunduroog pire. Mhm. original chaque jour mooy numéro un. te un kenn du ko doon di xëccoo deux. deux ak trois dañuy gunge rek ah moo tax ci jongante boo nekk jéem a la fël pee waaw te xam na deux day gunge trois day gunge rek. dañ lay mhm. couvertir kii da lay féetee nday jor ki féetee la càmmoñ. mais yow yaay ne au chemin yaay ne ci kaw. yow la ñuy couvertir. ok noonu la demee na solo Zarko léegi noo ko gisee. Zarko. dañ ma ko abal barke Serigne Touba ma wane ay secret moom Zarko. gëj <laughs> naa ko ci Serigne Fallou mi ma yaakaar. waaw Zarko suñ bëree ma daan ndax Zarko damaa xam ne nekk ci moom. waaw Zarko damaa nekk xale ñëw adressé ngoor gis ko. Mhm. du cuune nag de. waaw du cuune te du tàppet. te mhm. man ñu mel noonu laa bëgg a bëreel pour nit ñi xam suma ndaanaan. der yi. waaw parce que Zarko mun naa ne la manuel ci moom laa ko njëkk a suivre adressé ma nekk la am xale bu ndaw duma ko fàtte ne laa demee. adresse ngor ok lu leer la lay wax. plaque bii la de guerre di beure mhm. ci nu mu tudd sarko la ko ñëg gisé ak résister bu doy waar doole ju beuri ndaysan mais bu ñu dajee mu xamna du dara. hmm da dang ko xam. dama ko xam te xamuma. te dama ko fété xalé te doole xale bële xale. ndeysaan ambiance xalé sañ-sañ xalé fi xalé waaw man képar gi ma yoro la. Mouhamed man munu tapen tappet don ya doon li muy mhm. wax li may wax ni sarl bi muy àndal dëkk ak moom Grand Yoff xam na ko li may wax bàcc seeraas bi mu dëkkal Grand yoof mu mhm. nekk aéroport xam na ko bàcc seeraas bu Grand Yoff ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk Grand yoof ñu ma xam bu baax ma yàgga daje ak ñoom ci ay kërti kërti ci ay mhm. ruq lu garaaw laa la yow dama nekk ndaw mais gars yi maa leen gën a nekk musiba de man musiba ance laa duma xaaj li gars yi di xeeñ ñi man dama koo sangoo démb ñëw toog ak moom Wah, parce que. Mhm. gis nga nit su la reconnaître nit ñi di la bàyyi ala ah, fa am xaar kanam boy doxee di ko wax. Mhm, mhm. ndax ñi la sop bëgg la. waaw waruñu di bàyyi xel lu ñaaw ci yow. te man doxeewu ma noonu waxeewu ma noonu. sama ndëng tax nag naa la xamal leen de. ci métier bi may yëngu laa koy wane de ak ci ni may doxee man du ma dox nit dama dab dama téye mais ku ma yàlla ñu séq contrat non da nga ki musuma la mel. waaw foo nekk dama la fay fekk. te looy jaay suma kanam day lamb. Mhm. eh man original laa man numéro un laa de xëccoo ma deux xëccoo ma trois man au chômé laa nekk man ci kaw laa nekk man maay mayee loxo mais may loxo. ok mais diggante ak bébé jën taxaw na. bébé ah la yàqal. waaw parce que bébé jën bi muy bëreeg yu dama leen ko yuusut. Mhm. ba pare dama leen ko wax ci plateau ma leen kii bu pare abal leen ma mhm. waaw mais xëy na làmb moo tëddee noonu ñi ngay bëgg ak ñi lay bëgg du doon benn. du mais dañ ma xaar ñoom ñëpp damay bëree ak ñoom. bu dul tey di suba. bu dul suba di suba. waaw ok te Mohamed am na message du message sax alerte la. Mhm. parce que Mohamed julit ak moroomu julitam bu ñu mhm. xuloowee mhm. app bi. l'islam lan la ci tëral. julit julit ak moroomu julitam waaw dox ci dox ci jàmm xëy na. ak bu bu ak lu mën a xew ñoom ñaar seen diggante bu dee ñett fan war nañ mën a nekk si jàmm. waaw waaw mais man mënuma concevoir nit ñu dëkk. sadik kañaan ak soxor nekk sa xol ba ñu laale mhm. bu jeexee jeex na man ci cadre xeex bu ñu xeexee jeex na ci cadre leneen ak leneen buñ ci jànkoontelee def ci liñ ci def bu jeexee jeex na mais man munuma muñ murit jullit ak murit moroomu jullitam am problème mu jeex. Mhm. ku ci nekk di romb sa morom. loolu keñaan ak soxor ak sadik mënu koo weesu. te man buñ jotee nga romb ma romb la nuyu la nga romb ma nuyu woo ma saye bara sama la koy tegal te da nga am jomu suma faatoo bu la fumiste rambaaj ak seytaane da ba nga ñëw sama dëj nga fay jooy. Hmm. wala buñ ma yóbbu sëgee almeera di ma denc di nga leen di gunge. soo ko mënee gérer ko ba yombal xiyaam sax bu ñu boolee rang génn rang boobu dem beneen rang. yee. Hmm. ma dama bëgg nit ku direct ma dama bëgg nit ku dëggu. nit ak lu mën a xew nit nga doomu julit nga. bañ ak làmme ñoo dëkk mais des fois dañuy yéyante. àdduna dara lu ñaaw xaju fi. Hmm. te dara lu ñaaw jarul muy développé di loo bay àgg cet ak cet. non non demi mesure la war a doon warul doon lu rëy. am na ci ñoo xam ne bu ñu déggoo loolu dinañ ci xoolaat seen bopp bu baax. man doomu julli laa damay julli. man jàppalu ma nit rànkeñ man xooluma lu sadik ci nit ak lu ñaaw ci nit man ci cadre xeex dañuy xeex bu jeexee jeex na bu ñu nee ma nuyu ko dama lay nuyu su ma la rombee nga toog ma nuyu la nga dem romb ma ma toog nuyu ma bu la neexee na barrière bi tege. Mhm. ma li sama wareef ak sama ak ak ak doxal cadre julli doxal naa li ma war a doxal te ñaareel bi mooy Mohamed. Mhm, mhm. Mm-hmm. am saxul ñakit saxul. waaw. waaw. ba tax na man yaw mi ma bokal mm-hmm. nga mënal ma war ma defal yalla xagn ma. defal jamm du la gënal nga may seetaan. yalla mi la jox tay xagn ma. suba mën na la xagn jox ma. Mm-hmm. waaw nga nga bayyi xel lol bax mais ay su nga mënal ma war ma defal. setan ma ci goute gi ma ne. te yow yàlla jox la mënal la nga mënal ma war maa defal suba yàlla mi la jox mun na laa xañ jox ma waaye ay su ma joxee man mi mu xañoon. Hmm. su boobaa. su boobaa waaw. ay su boobaa. du hmm. message alerte la de. Hmm. waaw ba tax na ki nga jege. mënal ko war koo defal defal ko te yàlla tax. ngir suba ma ta sóor la ndax àdduna wari neen la. te sunu borom li mu yor di ko joxe bul la buy tourné de. ku mu xaj sa kàmb bu accès day dugg. waaw na gars di bàyyi loolu xel. ok parce que adna amul soro te dara jarul mu fi ñaaw. Mhm. te nit njëriñ ak teranga rek la wara mënal morom mu nitam ak mu julitam ak demlante ak hmm parce que adna amul solo de. wa te lu fi mhm. soobu tay suba day jeex. day jeex wa bo tax na booy bëgg sax bëggal ki la bëgg. ok wa ndax bëgg ki la bëgg. rek waaw boko ko noppalu. mo dama dama noppal sama bop de. ndaysan man ñima bëgg rek la bàyyi xel comme comme comme may dox di japp ne ki kat buguma wala ki xexon nañ am problème mu té bopam ci man mhm. ça ma dran ça ma concerne man deguluma la mohammed man ken duma téré dundo man daray stress dotuma fat di mam misère lo di ma jeex lo man damay relax mhm. simplement pire et dur librement di dox sumay activité di lek di nan di kaf di ré parce que ci aduna lañ né mhm. saway man fi la téré rétane mi ngi bok ci rukam di rétane dé te ku lay jooyloo ku ne bu wéetee mi ngi ree te kuy jooy mun ta nax kuy jooy man boo jooyee ñu ànd joy boo reetaanee ñu ànd reetaan kese point final la reste nag moom man doomu jullit laa dama julli di ñaan yàlla sunu borom am na solo man ni ma mel nii sunu borom moom ko def de ndax daray keñaan ne man uh-huh, uh-huh. te su ma naree keñaanee nit wala ma am lu ma mënta bokk ak nit yàlla ma sunu borom yóbbu ci deegu gaaw ma mm-hmm. am di jàmm ak suma mbokk yi ma am yaakaar ci man ak sumay deret Mhm. man nii laa mel de. waaw ah, man ni may waxee noonu laay jëfee. waaw uh-huh. ah, parce que nee nit ki melul ni mu waxee ni mu jëfee la mel. ni mu jëfee la mel waaw ah, te nit ki pour nga xam ko faa nga fekk fi mu nekk. ok man samay mbokk dañ may gërëm dañ may ñaanal. Uh-huh. waaw man tamit mhm. su ma mbaax su may mbokk buñ ma ko waxul dama koy waxal sama bopp. parce que man nii laa mel man lu ma am dama koy bokk ak jaam ñi. Mhm. moo tax suñu borom dama seetaan man dama sonn. foo ma gis naa damay kuul damay sol lu rafet lu neex laay lekk laay tëdd. parce que mhm. doomu julit la doomu julit warul ñak doomu julit bu ñak jappal xoolaatal sa bop xamna ranking nga xolu kañaan mu ngi ci yaw te xolu kañaan kum mu sa xol do dugg ci luy sotti lo yor day dem loo yaakaar day tas te kula lay yaakaar sax yaakaaram day tas waaw mhm. Mhm. parce que suñu borom doxale non ok nit warul sadik nit warul kañaan nit xoolal warul xol moromu julitam sax di ko bañ wala moromu julitam di yor lu rafet nga koy xol di ko ko non non kañaan sakul mayewul suñu mhm. borom ay xool ko soob ci doomu aadama mu dogal ko loolu am na solo ki ni mu mel du coobareem de lu suñu borom namm ci moom la moom man nii ma mel du sama coobare borom namm ci man la ma am ci ngëm-ngëm mhm. gëm na lu suñu borom def ci man la rabbi sama waati wala ardi kese yaasal jalaal wa rikaal man yàlla suñu borom rek laay topp moo ma def lu ma doon mhm. yee man sama juddute du sama sababu way jur lu suñu borom namm ci ñoom la jaarale ko ci ñoom yeewu dox samay activité du kenn ku dul sunu borom ndax su ma jugee njëlbeen damay julli ñaan yàlla xam na li ma may nii am na ñu ko mayul am na ñu yeewoo opital am na ñoo xam ne ñu ngi ci keesu morgue bi ñu war leen xaar ñu nit ñu yeewu ñu jullee leen robi leen man suñu boroom teguma loolu damay sant yàlla bay fecc mhm. eh man sama contentement yam weesuwul ci ma yeewu nekk si jàmm moo ma gën a lépp lu ma mënti am waaw mais su mbokk yi ma jege mënal ma di ma seetaan nag mhm. suba mata sóor la de ndax yàlla mi leen jox tey suba mën na leen a xañ jox ma mais su boobaa su boobaa su boobaa loolu am na solo. bu ñoom Mohamed ak seddu de. <laughs> waaw waaye la res amoon jéego. Uh-huh. Uh-huh. fu ñu xam nañ jëm. incha allah waaw ah, benn instant fi ñuy jeexalee mooy situation réew mi donte ko ay mbër ngeen waaye ay ay ay ay nit ngeen ci réew mi ngeen bokk. naka nga gisee coowal coowal réew mi jamono ji muy ci wàllu politique naka nga ko jàngate ak lan ngay wax xale yi yu mel nii yu mel nii bu amee ci réew mi. nan la ñu ah. war a taxawee. Mhm. nekk toog sa kër parce que lu mel ni su amee ñu ko war a lijjanti xam nañ ko waaw kilifa diine yi fi ne wax rek lañ mën kilifa ànd ak cosaan yi fi ne wax rek lañ mën mhm. mais la res tey eh, ñun suñu dëkk mhm. armée baa ngi fi de e gendarmerie nationale ak police dañuy gunge rek mais bu armée décidé mhm. liñ leen li leen neex nañ ko def parce que Sénégal réewum teranga la bu ñu kenn yàqal suñu teranga ñun ay drosine citoyen lañ te gisuñ suñu bopp ci dëkk bi kon nañ ñu mayal suñu dëkk jàmm ku ci nekk di mën di xëy di bay di dundee parce que ñun loolu lañ ñu xam ci loolu la ñu tàggat mhm. biñ juddoo ba léegi fayeeku droit de citoyen gisuñu état dugal suñu kër yi chaque fin de mois dund bu suñu waajur yi mën ñu mhm. buñ ñu mën a dundalee ñun mhm. njaboot gi kon nañ ñu may jàmm ngalawaay waaw di waxaan Macky Sall góor góor rek lay doon soo taxawee sa setal sa kàddu wax àdduna yëpp rafetlu loolu boo demee ba nar a defaat leneen de delloo sa xel ci lu rafet loolu nga waxoon. Mm-hmm. waaw parce que lu rafet day nëbb lu ñaaw. waaw lu ñaaw yàlla na fi jóg yàlla na fi géej bu mu fi amati. Mm-hmm. li fi jot a weesu rek doy na man sama jarbaat dafa dee ci. li fi amoon nii passé. booy mm-hmm. booy bi faatu woon Kër Massar. maa ngi yaayam ñoo bokk papa ay mag ak raq lañ. waaw kon lu mel noonu yàlla na fi jóg. yàlla bu mu fi ñëwati. te suñu njiit yi xam na bis penc dina am de. waaw waaw te nit ku nekk li la sunu borom dénkoon nga jabootee ko bis penc buñ taxawee di nga ko càmbar ba mu leer bu doon saako ceeb dinañ ko sotti nga koy wàññi benn par benn ba mu leer ci kanamu sunu borom. Mhm. da gaa di loolu xel. xam ne dee am na de. Mhm. chaque jour nga romb ci sëg yi ñu fa tëdd te at na du neex bañ jug. te yaa leen jaga jagatalee yóbbu leen foofu. Mhm. waaw benn instant kon na gars yi di bàyyi loolu xel de. ok yaa neex na trop. mais dund ak dee ñoo ànd de. ñoo ànd benn instant bu gars yi bàyyi xel loolu rek ku ci nekk li ngay def di nga ko seet. ku ci hmm. nekk boo doon def lu ñaaw di nga ko jéem a rafetal. barke hmm. Serigne Touba. ok Mohamed àdduna amul solo. te ñun suñu njiit yi ñoo ñu war a yërëm. Mohamed ñun métti na suñu trop. Sénégal dëkk la boo xamante ni da ngay bëgg fukk juróom të la sëkkoo féexoo man duma ma suma kër tabaski day jot sax ma gis suma papa ni muy keut kërtee ngir xarum hmm te duma taw topp ma ci taw te warna naa jante a jaante pat samp keur mun naa kërti ñew dajal taajal paam bee ne ko moo ngi ni pour hmm seede yalla mais do comprendre moom affaire leg leg day day doy war doy war go xamanteni ni xam mhm. lan la mhm. Mhm. ak Sénégal nek dëkk bo xamanteni recherche bo xalat am ci suñu dëkk bi Mohamed am nañ port international am nañ aéroport. Mhm. Mohamed zircon baa ngi Sénégal or baa ngi Sabodola. Mhm. fast food baa ngi. mbaaw bi jege bu bëgg a dee. gaz baa ngi fii. Uh-huh. Uh-huh. Mhm. léegi lan mooy problème bi. citoyen boo xam ne boo juddoo kayitu kayitu juddu daa koy fayal sa bop amoo droit de citoyen booy fayeeku par mois fayaluñ la courant fayaluñ la ndox joxuñ la dund mala la sum dawaloo oto Muhammad mëno tukki. Mhm. lan la. bu ko gaay xamé nañ mako wax. waaw commentaire yi dinañ ko wax inshallah <laughs> amna solo waaw. Mhm. da ngeen sooralé dé milliards yi ngeen denc ci compte yi. doomu dëkk bi nek fi di somé ñi di linja ñi di dund lu met ñi nga buñu agné ci lañuy ngeen ko ci bank yi <laughs> mhm, borom lool dina lér de. waaw wa benn instant. nga nit ki sunu borom bu la joxé lu weesu lu ngay dundé pour nga séddale askan wi la. waaw wa parce que yow mi suñu borom jox xagn ñooñu du sap ciobare lu suñu borom namm ci yow la. Hmm. mohammed man ñi di bako pouvoir ni ñewuma len de. barki leeru alxuraan ak borom doole yi di dawal. nek hmm. siisi ak V8 ak mala sam Lang Langbour guri ak Land Cruiser yi ni hmm. non man suma fas ak seret bi lak nawlo naa ko parce que nima ko amé xamna ne ci lu wóor ci lu lew la moo tax duma ma ko kafe du ma ko caaxaane mhm. voilà benn sànq. jaajëf bëgg naa cee war nga tàggatoo waaw. <laughs> Uh-huh. ah ku nit lu lew uh-huh. ah ak lu nit ñi mën a séddoo partage esprit de mhm. mais lu néew tamit te mu doon lu leew. ngay tëdd xel mu dal. moo ma gënal lu bëri loo xam ne su ma tëddee du ma nelaw. Mhm, noonu la demee. jaajëf. <laughs>